aar titre foncier bu dëkk bii di Touba am na ci jéego bu am solo bu ci amaat talaata ñaari fan ci weeru mars atum 2021 ni ko xalif général des mourides Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké sàkko woon amoon na ndajem wër mu am solo Serigne Mame Thierno mii kenn ki njabootam teewal ko ànd ak gouverneur bu Njaareem ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo séq commandement territorial bi ñu ràññeet tam ba tey chef de service yi nekk ci euh, Diourbel chef de village yi ak ñi nga xam ne ñoo ciy jàpp niki daara ci njiitu jëwriñam Serigne Youssou àndal ba ci sax maire yi nekk ci dëkk yi diggaloog Touba lu jege juróom-benni waxtu la ñu wër mboolem lu titre foncier TF 528 bi nga xam ne ci turu Cheikh Ahmadou Bamba lañ ko def muy tànku nemmiku yoo xam ne may na lu bari loo xamante ni leerul woon diggante titre foncier bi ak commune yi mu diggalool niki Touba Fall Missirah ak Mbacké ñu leeral ko te carte yi jël levée topographique yi borne yi lenn lu ci ne ñu xool ko fa mu war a nekk ba loolu tax na lu bari loo xam ne lëntoon na leer ba nattable ci borne bu njëkk ba ba dellu siwaat fa di liggéey boo xam ne nag li ëpp solo ci li ci juddoo mooy ni ko gouverneur sàkkoo ñu taxawal kuréel boo xam ne mooy saytu titre foncier bu Touba. loolu nag dinaa taxawal benn comité de surveillance du titre foncier parce que bëgguñu liggéey bàyyi fi at yii di ñëw ñu fekkaat fa leneen parce que ñun tam tooguñu benn place xëj na sama fekkoon comité de surveillance boobu xëj na sax lii du ko jar kon boog dañ taxal benn comité de surveillance du titre foncier pour lépp lu waay di def ci titre bi dina jàkkoo ak autorités yi ba ñu valider projet ba dossier projet ba daf fay jaar ñu xam ne yëg nañ ko maire bu mu sosool tëm titre bi bu amee projet dañuy xam naka la def ak titre bi ndax empiété wul ndax laalul fii ndax laalul fële moo tax maire limitrophe fi dañuy dugg ci comité grand comité de surveillance yi day am nag benn comité technique comité de surveillance boo xam ne service technique ñoo ko ñoo ko yore mais dina am comité bu large ak commission technique ginnaaw tànki nemmiku yooyu amal nañu am ndaje ci daara isbu tarxiya ci teewaayu gouverneur ak chef de service yi ñu gis itam lenn ci borne yi nga xamante ni yu daara isbu tarxiya liggéey la ci wàllu échantillon yu leen woon muy modèle boo xam ne mboolem ña fa teewoon ànd nañ ci maire Touba di Abdou Lahad Ka jël engagement ne fas nañu yéene liggéey ko ba mu àgg. li ci des lañu sëriñ bi jox ñu ànd ak yow ñu ngi ci lépp loo xam ne. luy luy lu tax sëriñ bi am lu mu bëgg la loolu ñun pare nañ pour loolu donc morno yi xool nañ ko de commission bi valider nga ko nee nañ baax na parce que borno la boo xam ne yaakaar naa ne ku ko rombati da nga xam ne lii mooy titre foncier Touba bi fii la yem donc lii moo ko tax a jóg loolu nag lu am solo la ah dana am ku fere yoo xam ne loolu amul problème danañ ci mën a waxtaan ak euh, sëñ Youssou mi nga xam ne moo jiitee euh, isbu yi ñu ñu waxtaan ci man a génne fe euh, li nga xam ne mooy moo mooy moo koy def lépp ñu mën ko def ndax mool borne yi la transporter ko yóbbu ko sur le site implanté ko donc ci ci ci euh, ci loolu loolu rek la donc service technique yi danañ mën a danañ ko mën a teg ba nga xam ne bu ëllëgee ki si biir boo ci taxawee ci benn rek am nga repère ci titre foncier Touba bi loolu euh, kon ñi ngi ñi ngi pare di joxe suñu engagement ci ne am nañ digal danañ ko ànd ak yéen donc supporter frais yi nga xam ne nii moo koy def kon nag ñu joxantewaat daje fii ak weer gën ngaa yàgg tasanteeg ñu mën a liggéey borne yi ñu xool ko ba mu dëppoo kem ni nga xam ni ni lañ ko diglee woon ñu soo ko xool nag yoon wiñ ciy teg ngir mën a samp leen te waraat titre foncier